salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax di leen baal àq di leen baal àq bi ñu jégal di ñaan suñu borom boole ñu jégal te lépp luñ jàmm yàlla ci koor gi yàlla ñu ko yàlla nangul defal ñu ko seen misaanu xasanaat ñu am nag cant ak gërëm jëmale ko ci ahlu latif ñoo xam ne tiktok bi moo ñu boole muy daayira latif boo xam ne ñu ngi ko tuddee mu yassirul asir man mii maay sos te ñëpp daanaka ci tiktok bi lañ xamante di zikkar latif bis bu set ci fukki fan yu mujj yi ci koor gi nag ñu daggoon lim bu am solo muy akala mulkaan muy un million deux cent trente quatre mille trois cent vingt et un ci yaa latif ñu kook mbokk yi liggéey ko liggéey bu sell ñaanal ci yàlla réew mi yëpp ñaan ci suñu bopp ak aajo yi mboolem jullit kon gis nga ni internet am na solo ndax yi yiwutal noonu te li leen lëkkale rek mooy internet moo tax ñiy wax naan wax ci internet baaxut xamuñu njëriñam moo tax kon waa daa bi yëpp ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax di leen sant leen gërëm di wax ne képp koo xam ne bëgg nga cee adhéré rek incha allahu taala boo ci wootee dañ la dugal moom daayira la boo xam ne adhé adhésion bi gratuite la fexe daal ba mën a zikkar rek la ñuy soxla te lépp waaye def ci sa compte bu koy def incha allahu taala kon foofu laay prof ndolloo jox leen benn secret ci yàlla tiif mooy koo xam ne foo toll sa xol day tàng foo toll da ngay mer foo toll doo am xol bu neex bëri na ñu ma koy laaj boo ko dee bu lay faral di dikkal de liggéey yàlla latif mille cinquante huit incha allahu taala léegi nga am dara xol mille cinquante huit yooyu moo tolloog salaamun qawlan min rabbin rahimin soo ko dee liggéey ci yàlla latif bis bu set rawatina léeg nga wut sa kaasu ndox boo ko sikkare ba ndox afu ko ci naan da nga gis loolu di dañ ci yow incha allahu taala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.